des internautes Dakar Midi ñu ngi amaan mbétti ak kontaante comme niñ koy faral di ko defee jubikaan ya ba léegi nee leen nii rek lay demee saa su nekk fii si Dakar Midi tey nag ñu wàccul sur le terrain bi ñu gis ne depuis kan ya ba léegi daa am ay sëriñ ak ay nit yi nga xamante ne sont des citoyens sénégalais dañuy génn sur dañuy génn def ay sorties sur réseaux sociaux yi di naan Sénégal du dee yegg quart de finale ñii di naan Sénégal du yegg final ñii di naan Sénégal du yegg demi final te yàlla may ndam ba Sénégal yegg final euh, ñu fas yéene wax xam ne dañuy def sortie pour waa Sénégal du yegg demi-finale ak lu si a xew daal fii lay xewee si Dakar mu di mu ànd ak sama caméraman bi ñu dugg si gars yi laaj leen seen réaction. salaamaaleykum si biir. maa ngi fay maa ngi lay fay si. tur beeg sant. waaw man maa ngi tudd Cheikh Sadibou mais Papis lan may wooye mais sant bi nag bàyyil ma ma denc ko parce que su ma waxee sant bi rek coow li di gën a bëri mais bàyyil ma nëbb sant bi rek parce que kanam après ba fin bi dinaa la wax lu ma sant. waaw tonton ñu ñëw fekk la fii te bëgg waxtaan ak yow euh, si affaire yi nga xamante ne mu ngi am ñu ngi koy gis ci Sénégal ñu gis ne Sénégal bi mu commencé ba léegi gis nañ ay ñu bëri ñuy def sorti dinaan Sénégal du yegg quart de finale ñi dinaan duñ yegg demi finale maanaam ñi nga xamante comme genre ay sëriñ ñi nga xam ne dañuy génne di def sorti di wax ne Sénégal du yegg demi finale loolu noonu te Sénégal tey yàlla may na ko ba ñu yegg finale loolu ban jàngat nga koy def en tant Sénégal. mais dama am loo xamante ni kilifa bu nekkee kilifa. même boo tëddee ba guddi yàlla euh, euh, wan la bul jóg rek bërët ne lii laa gis rek lii moo am rek nga tëb rek di wax kilifa du demee noonu kilifa buy doxal même boo tëddee ba guddi yàlla euh, wan la da ngay dal da xam ñi ngi koy waxal ak ñi ngay waxal ñan la ak fu koy waxee fan la mais doo xëy rek yàlla wan na la rek nga xëy suba teel wax yàlla mun na la wan nga xëy wax mu rocci lu ma la wan tegaat si leneen kooku yàlla rek ko mën kon nag kilifa buy wax dafay xam lu muy waxee sëriñ ñi ñuy wax nii nañ ñu may jàmm nañ ñu may jàmm bu nu mënoon bu nu mënoon billaay Sénégal du toll fii waxuñu sa football mais Sénégal du toll fii avancé noonu lu avancé noonu bu yàgg mais nit doo fanaanoo si jéeg ba na lëng xëy suba teel naan man gis naa lii gis naa lii gis naa lii Sénégal demee nii Sénégal demee nit ki boo bëggee sa dëkk même bu la yàlla wonee sa fan bi da nga am lu nga koy waxee te bul blessé kenn doo blessé kenn bala yàlla wone safaan bi dafa am ni nga koy waxee doo blessé kenn mais am na nu nga koy waxee rek yàlla day rocci loolu dugal sa contraire bi te bu ëllëgee yaa si wéet maa ngi ñaan nag sëriñ yeeg supporters yi ñu mel ni man ñoo xamante ne suñuy làmmiñ la ñuy yor di wax bu bii bu duggee mu naan sama sëriñ dugal bii bi kii ne sëriñ ma dugal bii bi kii ne sama sëriñ a dugal bii bi loolu tant que ñu ngi koy wax Sénégal du jëm kanam sëriñ yi seen yoon newul si fubal muy sama sëriñ ak sëriñ keneen ak sëriñ keneen ñoom jóguñu pour football ñoom dañoo jóg pour yàlla nee na alxuraan nee na yonent bi nee na mais jóguñu pour football seen yoon newul si football. kon na bu bii bi duggee naan sama sëriñ moo dugal bii bi kii na sama lii moo dugal bii bi kii na sama lii dugal bii loolu da nga ko war a dépassé si Sénégal da nga ko war a dépassé Sénégal Sénégal ñun ñëpp dañoo war a tappe xol yi xam nga xale yi nekk fële football football moo leen tax a jóg lu jëmee Sénégal kanam moo leen tax a jóg ndam moo tax a jóg parce que ay professionnels lañ ñoom ñëpp ay professionnels lañ si équipe bi mag la ñuy jógee pour ñëw fubal du leen jëlee fële tubaab yi du leen fay ay millions ñuy fubal sans comptement ñun ñi nga xamante ne ay ñoom ay doomu réew mi la dañ leen a soxla pour ñu andi leen ñun ñoom ñu gën a bëgg ndam kon nag nañ leen ñaanal nañ leen ñaanal ñu tappe xol yi ñun ñëpp Sénégal day jëm kanam incha allahu rabi buñ ko defee rek coupe bi dina ñëw coupe bi dina ñëw facilement Sénégal nañ wàññi wax bi. ñun ñëpp ay entraîneur lañ man sama maam sax entraîneur la sama maam day ne léegi euh, onze joueurs lii lay demee nii lay demee nii lay demee maamu keneen ne lii lay demee nii lay demee mënut a nekk ñun ñëpp ay entraîneur lañ. entraîneur nag doon ne Aliou Cissé mooy entraîneur bi na nga ko bàyyi mu teg moom lu mu xalaat pour Sénégal dem kanam loolu la xalaat pour yóbbu nañ ànd ak moom. man tey bu Aliou Cissé tegee onze jours man ma andi samay onze jours teg ne Aliou Cissé waratu yóbbu kii ko Aliou Cissé leen jiital kay moom yaakaar nañ ne man su ma yóbboo samay onze jours ñi ñoo war a jël coupe bi nañ ko ñaanal nañ ko ñaanal senegal jëm kanam mais ku nekk ne non non warta def li warta def li warta def man entraîneur kii entraîneur kii entraîneur léegi nag kan mooy jiite kenn du jiite Sénégal loolu moo ni rey te nag nañ ko war a wàññi ñu ànd ñun ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñun ñëpp nañ ànd tappe xol yi buñ ko defee rek Sénégal bay naat Sénégal yàlla defar nu loo xamante ne defar ko benn dëkk man amaana sa ak ak sama lamiñ bu rëy defalu ko sa arabu saudi am na nañu Alaaji Malik am nañu Serigne Touba am nañu euh, euh, euh, Cheikh Ibra Fall am nañu Mam Mam Mam Ñas am nañu fële Laayeen yi lu lu nu am Ñaseen lu nu am senegal si nga Sénégal yàlla dafa defar Sénégal loo xam ne defar ko si benn dëkk kon nag ñun ñëpp bu ñu tapee xol rek Sénégal day dem kanam Sénégal day dem kanam wasalaam. maaleykum salaam soxna si fay nañ la. tur beeg sant. maa ngi tudd Mouhamed Diagne. Mouhamed euh, nag ñu bëgg a waxtaan ak yow ñu gis ay sëriñ yu bëri dañuy def sortie wala seen bëri depuis kan ba léegi gars yi dañuy def sortie di naan Sénégal lu yegg demi final ñi naan lu ñu yegg quart de final tey may ñu ndam ba ñu dem ba final ñooñu nga xam dañ doon génn di wax Sénégal du ñu yegg demi final ñii di naan du yegg quart de final en tant que yow lan nga leen di wax. waaw bon loolu lu ma siy wax moom bëriwul parce que sama xam-xam moom àggul foofu sax sooy seet waaw ah, bon comme que commencé woon nañ ko si bisimilah rahmaani rahiim ñoom nañ toog rek ñu eggale ko alhamdulilah rabbil alamin ba coupe bi ñëw ak jàmm ak salaam ñoo xam ne loolu jiguñu sooy seet fii ak ay année année yi passé coupe du monde yu bëri chaque année ñu wax ñaan Sénégal lii lay def yàlla ñëw def contraire su ma sañoon daal ñoom ñëpp ñu noppi. ñu noppi bàyyi yàlla dogal lu muy dogal bàyyi jour yi am seen esprit tranquille quoi loolu mooy gën a dalal seen mooy gën a dalal suñu xel quoi sama xalaat ma sañoon daal ñu tranquille bon. Euh, léegi ñu gis euh, depuis Kanye ba léegi gisuñu ba nga xamante ne génne na woy Lions yi benn kenn kese lañ gis muy Queen Biz boobu ba léegi moom rek mooy woy Lions lan moo tax ak lan ban jàngat nga gis si loolu ma nga xamante ne euh, loolu def na ko. waaw bon loolu loolu tamit nekkul suñu porte-bonheur ko sooy seet parce que année yi passé yëpp daan nañ ko def depuis 2002. 2002 lu ma si fàttaliku zone bëriwul noonu waaw mais depuis boobu ba léegi sooy seet kaan wala mondial am musiciens yi ku nekk bëgg a gi génn def buzz xam nga ut si li bëgg bëgg dañ siy bëgg utaale buzz quoi pour man sama gis-gis kon que Queen Biz moom moom moo si ut moom moo si way ren ji ah nañ ko bàyyi mu continuer rek <laughs> moom moom jigagum nañu moom kon que way nañu gañe moom ah na wayaat rek <laughs> waaw final bi kon que moo si way moom ñeneen ñi moom lañ xaar waaw moom na wayaat waaw Queen Biz moom génnee na ñu ngi gañe moom moom jigagum nañu Seye waaw ñeneen ñi moom nañ xaar quoi waaw nañ xaar bañ jël coupe bi ku nekk nag waaw coupe bi moom su ñëwee neex waay def waaw moom incha allah lu neex waay def te day ñëw sax incha allah incha allah yàlla.

dañuy wax lu ñu xamoon mbiram yàlla moom soo ciy sori moom defe naa ci jàngoo tamit da nga sonal sa bopp yàlla daal bu dogoon ni final bi coupe bi moom dana ñëw Sénégal incha allah rabbi dana ñëw ba dogoon na moom ala kulli alim kenn mënu si dara dara nit ñi nag moom il faut ñu wax parce que ci wax la ñu féetee mais bu wax jotee ñëpp danañ wax ñii danañ wax kii ñuy wax mooy yoon mais de toute façon daal mbir moom nañ ñaan yàlla rek mu ñëw si jàmm ak salaam moo gën daal wax gi daal man sama gis-gis. moo gis ni am na wóykat yi commencé ba léegi gisuñu benn wóykat bi nga xamante ne génn na woy mel ni benn kindiis rek moo génn woy lan moo tax tamit ak ban jàngat nga gis lan moo tax ñoom nanguwuñ génn soit dañuy xaar final wala daa dañ wala dañ dugal woy li ñuy rek non du loolu peut-être tamit mu nekk euh, défaite bi leen daloon daaw rek moom la ñu bañ mu daal leen ren daaw xam nga dañoo demoon bu mm-hmm. euh, bi moom réussir te tamit ñu bàyyi ba nga xamante ne nii ñu ngi ci final bi ñu door a seen i kase xam naa musicien yi moom loolu da sama wàll moom mais peut-être tamit am na lu ñuy préparé ci suuf waaw waaw laa gis seen ah, année yàlla mooy ñooñu moom wax dëgg yàlla état bi da ca war parce que moo nekk Sénégalais naan Sénégal du dem coupe d'Afrique du jël du jël du dem quart de finale du jël coupe loolu bi da du du dem finale du yéeg kenn ko wax quoi pour man loolu gaa di dañu yëpp du am na ñuy bàyyi na fekk xamuñu dara maa ko wax billahi dara xamuñu ko sérieux di see xamuñu tous waaw xamuñu tous voilà mais gisuñu dara ko ci laayonte loo reer dem xamu ko billahi ko dem gën a loo reer dem xamu ko ay jeunes yu ndaw war a liggéey ndeew sa kaala muuru ni tax ci télé na def li Sénégal day du def lii sa def lii kay booy ndaw la suñu morom lañ duñ dara billahi xamuñu dara la ma nga sax yow waroo jëleen ndogal billahi wallahi ku ñu gis ngay wax ci teel na sanga jóg ko wala nañ def lii billaa da yoroo ju nokk ci kaso les Sénégal du bi en tant que Sénégal taw na Sénégal du jël coupe pour lan mel ni Cameroun ne loolu Cameroun ñoo war a def wala ay Burkina bi wala Congolais mais ngay Sénégalais taw na Sénégal du jël coupe loolu loolu a wax billaa dañ a wax loolu du yoon ah xëy na dañoo gëm seen bopp xam naa dañoo yaakaar ni coupe bi moom du ñëw waaye ren bu soobee yàlla coupe bi dina ñëw ci kàttanu yàlla incha allah ren suñu coupe la de ren yii la lu comme ni ñu naan yeewu Sénégal jour nañu yeewu Sénégalais ci 2022 bi loolu maa la ko wax billahi wallahi loolu maa la ko wax loolu jàppal loolu coupe bi suñu coupe bi la ren incha allah dañuy ñaan rek waaye mun mënul nekk loolu kenn ko wax nañ ñaan yàlla sutura ñu jël coupe bi ren loolu moo jar a ñaan waaye duñ ko jël ak dañuy ñibbi si waat loolu ay yëfu naa fekk la loolu dañ ci war a jóg billahi état bi ci war a jóg loolu waaw dañ ko a du yoon. waaw maam bëgg naa bëgg naa trop. bilaay bëgg sant bu baax kay. non tur bi dama koy leb. Euh, léegi ñu bëgg waxtaan ak yow ci cadre bi nga xamante ne euh, ci kan bi la ñu gis ne Sénégal bi mu commencé kan yi ba léegi am nañ ay sëriñ wala ay nit yi nga xam ne dañuy génn def sortie dinaan Sénégal du ñu yegg quart de finale ñii naan du ñu yegg de finale ñi naan du ñu yegg demi finale wala ay marab yoo xam ne dañuy génn di def sortie en tant que citoyen la ngay wax ci loolu. ñooñu moom ñi nga xamante ne ñooy diwut ay affaire mara ay affaire yooyu noonu ñoom bu ñu xamante dañuy toog fi ñu toog nit ñi ñu toog ku xamul dara da ngay toog fi nga toog nit ñi ñëw fekk la fa. mais Macky Sall ci boppam Macky Sall moo war jël ay digi ay kii am normal ñëw wax gars yi képp koo xam ne wax nga ci état Sénégal wala nga wax ci leneen lu dul affaire Sénégal ay équipe nationale bu Sénégal mu jàppale tëj la kaso. parce que lii di yoon ki waxoon naan Sénégal du dem quart de finale kooku day fen Sénégal ngi ni dem na finale te incha allah da jël nañ ñaan nag nañ ñaan na Sénégal yëpp ñaan eh, na Sénégal yëpp ñaan Sénégal incha allah nañ ñaan rek yàlla baax na ñu gis ne bi kan yi commencé ba léegi gisuñu benn artiste bu génn woy à part Queen Biz moo génn woy loolu noonu est-ce que nekkul gars yi dañu xaw dañ foog ne Sénégal du yegg loolu du problème bu mu woy ay yooyu noonu man yooyu contre ma ko Queen bi xam mooy problème bi marabu yi ñaan Sénégal du jël coupe d'Afrique mais ñoom duñu ay sénégalais loolu du yoon Sénégal da liggéey pour Sénégal jëm kanam bu fekkee Sénégal bu dee doo Sénégal nga génn nday réew mi du yoon lii du yoon quoi maa ngi jégalu nag ci saaga bi. est-ce que nekkul tamit ñoom koo gis tamit. waaw mais du gisuñu dara parce que dañuy fen képp ko waxoon naan Sénégal du dem final dina dem final ak Sénégal incha allah Coupe d'Afrique bi ba soobee yàlla da koy jël day dóor Égypte 3-0 maa ko wax. wasalaam nan ñaan yàlla baax na incha allah. lay jaajëfal. waaw merci beaucoup kontaana si yéen Dakar. midi midi ok. ay affaire Mara ay yooyu noonu ñoom bu ñu xamoon dañuy toog fi ñu toog nit ñi dañuy xam toog fi ñu toog parce que bu xamoon dara da ngay toog fi nga toog nit ñi ñëw fekk la fa mais Macky Sall ci boppam Macky moo war na jël ay digi ay kiyam ay normal ñëw wax gars yi képp koo xam ne wax nga ci état Sénégal wala nga wax ci leneen lu dul affaire Sénégal ay équipe nationale bu Sénégal mu jàppale tëj la kaso. parce que lii di yoon kii waxoon naan Sénégal du dem quart de finale kooku day fen Sénégal a ngi ni dem na final te incha da koy jël na ñaan nag na Sénégal yëpp ñaan na Sénégal yëpp ñaan Sénégal noonu day jël coupe d'Afrique bi incha allah nañ ñaan rek yàlla baax na ñu gis ne bi kan yi commencé ba léegi gisuñu benn artiste bu génn woy à part Queen Biz moo génn woy loolu noonu est ce que nekkul gars yi dañu a ragal wala dañ foog ne Sénégal du yegg loolu du benn problème bu mu woy ay yooyu noonu man yooyu contrôle bi xam mooy problème bi marabu yi ñaan Sénégal du jël coupe d'Afrique mais ñoom duñu ay sénégalais loolu du yoon Sénégal da liggéey pour Sénégal jëm kanam bu fekkee Sénégal bu dee doo Sénégal nga génn nday réew mi du yoon lii du yoon quoi maa ngi jégalu nag ci saaga bi. est-ce que nekkul tamit ñoom dañ koo gis tamit. waaw mais du gisuñu dara parce fen képp ko waxoon naan Sénégal du dem final dina dem final ak Sénégal incha allah coupe bi ba soobee yàlla da koy jël day dóor Égypte 3-0 maa ko wax. wasalaam nañ ñaan yàlla baax na incha allah. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup kontaan naa si yéen Dakar. midi ok. oui maa ngi lay fay soxna si. Euh, tur beeg sant bi. Euh, Sela laa tudd sant Bodian. Euh, Sela nan nga gisee sëriñ nga xamante ne wala nit yi nga xamante ne ay sénégalais nekk ay doomi réew mi nga xam ne dañuy génne di def sortie di bikaani bu mu commencé ba léegi ñii di naan Sénégal du yegg demi final ñii di naan Sénégal du yegg quart de finale am dañuy génn di wax si loolu en tant que citoyen lan nga leen di wax lan nga wax si loolu. waaw ñooñu du ñu ay citoyen soxna si ndax tey ku mel ni Kunkandé tey jii nii li muy def Sénégal fii nii loolu dama ne nii Sénégal gëmul loolu noonu te loolu réew mu sell la te am na lu ñu gëm am na si lu ñuy dox Koukandé nag man damay ne ni gars yi ko si lu mu ne mais tey jii bu ma ji ne jiitu réew Koukandé du fi teg tànkam wala fi tegee tànkam tamit mooy loolu waaw dañ koy teg si yoon waaw ak lanate encore ñu gis ne bu kan yi commencé ba léegi gisuñu benn woykat bi nga xamante ne génn na woy lion yi kenn rek moo génn muy euh, euh, kin biis est-ce que nekkul yi dañu xaw a ragal foogoon ne Sénégal du yegg final wala affaire bi lan la aussi. ñoom la rek amaanaa dañoo ragal wala soit daa am lu ñu gëm rek mais sa foog naa yow en tant que chanteur bu nekkee benn affaire wala lu mel ni kaar kii CAN Coupe d'Afrique daal maanaam. dem ba tool fi mais bien avant sax muy tool fii nii sax war nañ ko mën a motiver am luñ ko accompagner loolu noon da leen di gën a dimbali comprendre nga da leen di gën a mën a ñaax xam ni ñi ne seen gànnaaw fàttewu ñu leen waaw te incha allah Sénégal dina am ndam dina jël final dina dóor ndax Sadio Mané tamit yàlla na ko yàlla may xam nga bu rafet. jël na lu ne mais Coupe d'Afrique moo fi des yal na ko fa yàlla may. amiin ko waxoon au début yi nga xamante ne euh, Sénégalais yi nga xamante ne def nañ seen témoin ak seen xalaat ci ngi si sëriñ nga xamante dañuy génn se def sortie si ñi doon naan Sénégal du yegg quart de finale ñii di naan du yegg finale ñii di naan du yegg may na ko ba Sénégal yegg finale te ñu ngi koy ñaanal mu jël ndam li indi ko fii si réew mi gis ngeen gars seen réaction bi ñii neexul leen am na ñoo xamante ne ku nekk wax na sa kàddu ak sa xalaat nii lay demee saa su nekk fii si Dakar